wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa xabibina wa qudwatina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxaabatihi qurri lmayamin wa ala taabixin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baad ayuha al ixwa al mushaahiduuna al kiram wa aqawaati al mushaahidaat fi kulli makaan ayuha al ahibatu fillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew gannaaw bi ñu musloo yàlla ci seytaane sant ko moom borom bi tabaraka wa taala julli ci sangi-sang yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla fayal ñu ko waaye fayal ñu njabootam waaye fayal ñuy tamit ay saxaabaam mbokk yi dellu nañu ci seen programme diine ji fii ci ay Africa TV comme ni ñu ko baaxooyee ayu bis bu nekk ci waxtu wi fa tabaarakallaahu xam ngeen ne diine ji nag programme diine la boo xam ne dafa ànd ak jamono ndax diine fa tabaarakallaahu dafa ëmb dundi doom aadama bi yépp diine mosul bay jaam bi benn jamono ji diine dafa tënk àdduna waaye dafa tënk àllaaxira daf leen boole ndar kepp la ndar képp lépp mu di àdduna ak moo tax programme bi fa tabaarakallaahu ànd ak diine ji waaye di doxit ànd ak jamono jamono bu nekk rek waxtu wu ne mu indi leen la ca diine wax lan mooy taxawaayu diine ca loola fa tabaarakallahu mu mel ni guddi yi ñu toll bëccëg yi ñu tollu fa tabaarakallahu sunu borom ubbi la tina jullit ñi beneen buntu yërmande beneen buntu njëggal waaye beneen buntu ngërëm waaye buntu boo xam ni fa tabaarakallaahu buntu yiw buntu yokkute ci jëf ju baax la muy lan fa tabaarakallaahu mu di fukki fan yi nga xam ni moo njëkk ci weeru tabaski nga xam ni sunu borom waat na ci fukki fan yooyu waat ci seen baaxaay ak li yàlla denc ci biir fukki fan yooyu nga xam ne fa tabarakallahu ci la taxawaayu arafaat waaye ci fukkeelu fan bi mu yàlla la goo xam ni ñu ngi ko jëlee ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sayduna muhammad moom mu ngi jëlee cosaan ba mu ko royee ci sunu maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam te xam ngeen ni ibrahim fa tabarakallahu lu ne ko yàlla jaraloon sunu maam ibrahim lu nekk la ko yàlla jaraloon yàlla teg na ko nattu façon xeeti nattu bu ne waaye nattu bu ñëw gën a métti ci Ibrahim waaye natt bu ñëw rekk xolu Ibrahim gën ko mën a dékku ci muñ fa tabaarakallaahu mosul caalit benn yoon ak li nattu ya di bari bari tàmbalee ko ca bañ koy sànni ca safara sa ku ne ñëw na wax ak moom bëgg ko dimbale du Jibril du mikail du asrafil du asrail kenn ku ne ci ministre ministre suñ borom yooyu ñëw na ci yonent yàlla ibrahim takkaayu fas yéene pour dimbali ko ci safara siñ ko bëgg a sànni ibrahima ne leen suur naa seen ndimbal hasbi yàlla doy mook nattu ya ba yàlla xëy ba yàlla xëy na ko rendil sa doom kon gis nga Ibrahima pour yàlla nangul ko ciru xarit bala yàlla di ko nangul pour mu war a nekk xaritu suñ borom yàlla teg na ko façon natt bu ne natt bu ko teg rek fekk xolu suñu maam Ibrahim fekk fa ngëm yàlla ak muñ bu mën a dékku natt boobu ba yàlla xëy na ko léegi nangu naa ne yaay suma xarit nangul naa la xariti yaa boobu wattaqasa allahu ibrahima xalilan waaye gis nga balaa ko yàlla di nangul xariti yaa tuuti kon mu xaw a dee moo tax am yàlla yombut am yàlla yombul waaye yal nañ am yàlla sunu maam Ibrahim jeex ci boromam ba yàlla gënal ko lu ne loolu moo tax yonent bi bi mu ñëwee yàlla na ko royal Ibrahim wa millata ibrahima hanifan lu tax mooy wa ma kaana min al mushrikin yàlla ni na sayduna muhammad toppal yoonu maam ibrahim royal ibrahim mel ni yonent bi daf ko ni lu tax nga romb ñépp joxoñ ma ibrahim ne naa ko roy yàlla na ko li tax mooy man maa koy seede te doy naa ko seede mooy Ibrahim su ma digganteeg moom mosu ko rax yàlla la musul bokkaaleeg yàlla ci dara ku set la taqul dara léppam yàlla la mosul jaamu lu dul yàlla mosul gëm lu yàlla mësul ragal ludul dul yàlla waaye ibrahim yaakaarul ndimbal ci kenn ku dul yàlla yàlla mooy léppam wa ma kaana min al mushrikin yàlla ne na ibrahima mësul bokkaale ak yàlla mësul sujjóotal xirim mësul jaamu lu dul yàlla léppam daf ko jox yàlla moo tax bi mu gisee yéeféer yi di rayal seen yàlla yi ay gàtt di leen tuural deret mu am benn bis am ko ray téeméeri gélém pour xërëmam ñu dëkk bi yépp di ko waxantoo nag diw li mu defal yàllaam ji téeméeri gélém la ko reyal di ko wax ba wax ja yegsi ci yonent yàlla ibrahim ibrahima ne accam loolu day dara xanaa man su ma amoon doom ju góor sax mun naa koo rendi ngir suma borom ñu ne ko nga ni mu ne su amoon doom ju góor mën naa koo rey ngir suma borom xolam sedd yàlla ci mbaaxam jamonoy dem bam may ibrahima doom ju góor te xam ngeen ni suñ maam ibrahim sëy na ak saarata lu yàgg ba ibrahima am téeméeri at ak fukki at ak juróom-ñeent saarata jabar ji am juróom-ñeent fukki at musuñu am doom ñoom ñaar sëy nañ ba màgget ba bëj seen yaram yi lax seen kattan néew te yàlla mayut leen takkandeer amuñu doom bu góor amuñu jigéen ci waxtu woowu ci la saarata ne suñ maam ibrahim téema laa may suma jaam bu jigéen bile suma jébéer bu jigéen bii di Haajara nga def ko ñaareel mën na am yàlla may la ci doom boo xam ne dina la wuutu ci mbaax gi nga nekkee ci àdduna Ibrahima bañ Sarata ndeysaan di ko nax ba mu nangu wallaay ndeysaan moo tax aawo yi war nañu jàng mbaax gi ci soxna su baax si di sayyidatuna Sarata di aawo sunu maam Ibrahim moo utal jëkkëram ñaareel Sarata aawo sunu maam Ibrahim alayhi salaatu wa salaam moo utali jëkkëram ñaareel ba pare may ko ko ndeysaan ñu may xaajara yunti yàlla ibrahim mu taawlu wasin yàlla may ko ci doom ju góor mu ngénte ko tudde ko ismail kon seetal mbiru yàlla seet bi mujj ñëw ci kër gi ñaareel bi njëkk na fee am doom aawo bi pour wan la yàlla lu ko neex def awo bi fi sëy ba màgget yàlla mayu ko fi takkandeer awo bi jël jébéram bu jigéen boobu haajara takkal ko jëkkëram ñu ànd yàlla may leen doom mu juddu nekk góor ñu wat ko tuddee ko Ismaayil kon ñaareel bi njëkk nay am doom awo bi ci kër gi awo bi dem na ba foog ne moom dootul jurati foog ne na ndax mbiri njur jeex na ci moom ndax màgget na yàlla na ko dangay def lu baax di ko defal koo xam ne sa sang mu di sa jëkkër ngir bëgg mu am takkandeer bu ko wuutu ëllëg turam bañ a fay dangay ngay jaay mbaax di defal sa jëkkër loolu ngir man yàlla waaye mënit dinaa la wan na la maa la gën a baax ndax ku ma lebal ker man yàlla ma fay la guddi saarata moo may haajara yunti yàlla ibrahim haajara taawloo ci doom ju góor ñu tuddee ko ismail yàlla ne aawo bi saarata saarata yàgg nga fi lool mayuma la takkandeer waaye jëf ji nga defal sa jëkkër utali ko ñaareel duma xaar ba àllaaxira ma door di la fay mais fii laa lay mosalee fii laa lay mosalee dara bala ngaa ñëw àllaaxira yàlla na ko may gi nga may Haajara Ibrahim mu am ci doom mu taaw mu taawloo doom ju góor yow itamit jëf jooju danaa la ko fay dinaa la may doom ju góor yow tamit ci waxtu bi nga xam ne foog nga ne waratuloo jur yàlla xëy may saarata mu ëmb mu jël ëmb ci suñ maam ibrahim gannaaw juróom ñeen fukki at yu teg ibrahima am one hundred and nineteen years téeméeri at ak fukk juróom-ñeent mosu ñoo am doom saarata xëy ëmb mook ëmb ba ba mu wasin mu wasin andi doom ju góor sunu maam Ibrahima wat ko tuddee ko Isaaqa kon gis nga aawo bi jëf ju baax jim defal jëkkëram yàlla tàmbali na di ko ko fay ci àdduna foogoon na ne duutut am doom juy daagu ci kët ëttu jëkkëram waaye jëf ju baax jooju mu def tax na moom it yàlla may ko fi doom ju góor buy daagu kom ni doomi ñaareel bi di daagoo ci kër gi ñoom ñaar ñëpp mujj am na doom moo tax looy defati na rafet lépp looy defati na baax mhm. yëg nga ne jëf ju baax ji aawo bi def saarata lu baax lim defal jëkkëram wutali ko ñaareel takkal ko ko ngir bëgg jëkkëram jur ci doom même moom bu munta am doom sax na jëkkëram am takkandeer bu muy bàyyi ci àdduna gis nga yéene ju rafet jooju mu am am ko ci jëkkëram bëggal ko jëkkëram yaatal xolam pour wujji ñëw ci la yàlla kontaanee ba ni ko yow it dinaa la may doom ju góor allahu akbar ci la ko yàlla may moom it doom ju góor mu tudde ko waaye xam ngeen ni suñ maam Ibrahim bi muy am ñaari jabar daanaka benn néeg la am xaju fa ak ñaari soxna yi moo tax yàlla na ko toxoo fi sës mu ne ko koy toxu mu ne ko utalil séet bi fu dëkk nga bàyyee aawo bi kër gi ndax aawo bi fi jiitu kon bu toxu waree am utali sa séet bi fu mu dëkk yaa xam nag fu ngeen bëgg a dëkk lii mooy yóbbu xaajara makka taxu ñoo jog waaye suñ maam ibrahim bi ismaila juddoo dem ba mën a dox ñu ne ci fukki at ak ñaar la toll waaye daal dem na ba mën a dox ànd ak baayam di dox bi demee ba tollu foofu ci la Ibrahima tëdd guddi génn génte ci biir nelaw yi yàlla na ko rayal sa doom yaa ko waxoon yaa noon su ma la mayee doom ju góor bëgg nga ma mbëggeel goo xam ne man nga koo rendi pour man am nga ko rendi ko alquran ko wax falamma balaqa maahu sahya qaala ya bunayya inni ara fi lmanami anni asbauka fansur ma sa tara yàlla may ko doom mu judd doon góor nekk xale bu rafet yàlla bàyyi koog doom ji ba doom ji mën a dox ànd ak baayam mu tëdd guddi yàlla fàttali ko na ko yaa ko waxoon moo tax gis nga wax waxeet fum ne la door a xew waaye démb jullit lu mës wax rek dana ko dëggal alquran ne bi ismail la demee ba mën a dox ci la baay ba gént ci biir yi nelawam yàlla na ko rendil sa doom ji ibrahima xëy rey téeméeri gélém saraxe ko foog ne ndax loolu dina war a doy yàlla mu tëddaat guddi ñu wanaat ko ci biir gént gi na ko rendil sa doom allahu bar mu xam ne lim def rëy na waaye sox yàlla soxlawut loolu ñu ne ko ba léegi reyal sa doom ñetti fan bis bu njëkk bi téeméeri gëlëm la rey saraxe ko pour doom ji mucc yàlla na ko déedéet ñaari fan yi mu yokkaat gëlëm yi ñaari téeméeri gëlëm rey saraxe yàlla na ko soxlawuma sa bakkanu doom laa soxla ñetteelu fan bi mu rendi ñetti téeméeri gëlëm saraxe yàlla na ko ba léegi bakkanu xale bi laa soxla seetal nit ku am téeméeri at ak fukk ak juróom-ñeent mosta am doom ndax kooku bu amee benn doom doom jooju nu muy war a mel ci xolam ñoom ñaar kan la ci yonent yàlla Ibrahima gën a bëgg benn doom la am seetal waxtu wim ko am du ko gëmee yàlla nag di seet Ibrahima doom ji la gën a bëgg ci yàlla wala yàlla la gën a bëgg ci doomam mu natt ko ne ko ray ko ko sarax bu ne Ibrahima def na ko pour yàlla baal ko yàlla na ko déedéet bakkanu xale bi laa soxla ren Ibrahima def na ko pour yàlla baal ko yàlla na ko déedéet bakkanu xale bi laa soxla rendi ko lu jóge ci yàlla la mu xëy rek ne Haajara sangal ma Ismaahil ba mu set nga diwal ma ko yaramam bi solal ko yére yu rafet dañuy ànd tukki dama ko yóbbu mu xami kër nijaayam waaye li yéeme ci tukki mi mooy Haajara sang na Ismaïl solal ko yére kóomal ko kawar gi mu daanu ci gannaawam mu diw yarama nuyul tukki seeti say nijaay mu jàpp ci loxo Ismaïl ñuy dox mu bàyyi loxo Ismaïl ñu def face to face ñoom ñaar jàkkaarloo baay ak doom ci àll bu wéet mu ne ko doom tukkiwuñu demuñu fenn fii laa la doon indi mu ne ko loo ma fii indi mu ne ko doom ñetti fan a ngi nii may gént saay bu ma tëddee guddi ma yaa ya inni ara fil manami ñetti fan su ma tëddee suma ma borom ne na la rendi saraxe naa def na lu fansur maasa tara seetal ni nga gisee mbir mi di jooy di ñaan yàlla ba keroog yàlla baal ñu wala yu baax juñ yar ci ngëm yàlla bu dëgër ba yàlla sax ci xolom mu juddu ci deret bu baax jiw bu baax suuf su baax seetal doom ju baax lu muy tontu baayam doom ñetti fan a ngi nii saay bu ma tëddee yàlla ne naa la rendi lu ne defal naa ko yàlla yàlla ne sa bakkan bi la soxla léegi nag yow lay lu nu ñuy def Ismaayila ne ko baay seetal ni mu baayam sax nangu la jaar ci tur waaye def ko ne yaa abati baat bu daw yaram ey yow sama baay ey yow ki nga xam ne yaa ma jur yow ki nga xam ne lu ma man ak lu ma am lu ne yàlla nga ko jaaral jaarale ci yow yow ki ma jur ba pare yërëm ma yërëm bu ma kenn yërëmut ci bindee fi yàlla yi yërmande bi kontaan waaye bu ñu la ne sa xam yéene ci boppam xam jàng nga de am nga xam-xam waaye sa dooma la raw nga békk dundak ak dee nag dee bu ñëwee dund ñëw ci diggante ñaare xarit ñu ne nag kenn ki jël dundu ki ci des jël dee boo sàgganee benn xarit bi daf naan booy xaaral ma jël dundu bàyyi la nga yooru kenn du la bëgg ba dee ñëw mu dékku dee gi bàyyi la dund incha allahu taala tuutri tuutri yam bàyyi mu ne ko naam doom mu ne ko ah, mu ne ko dinaa bokk ci wéy muñkat yi waxu ko ne dinaa muñ dinaa xool na kër ga fekk fa Haajara na ko yaa ngi tëdd di nelaw waaye sa jëkkër tukkiwul ak sa doom ji yóbbu ko kër nijaayam pour mu xami ay mbokkam def ko yóbbu minnan pour rey ko ci xeer wi boo yéexee mu rey ko Haajara na ko lu tax mu koy rey foo gis doom juy rey ba baay juy jur doom amul lu dul benn doom di ko rey foo ko gisee mu ne ko ci sa jëkkër lu tax mu di ko rey seytaane na ko mu ne dafa gént ñetti fan boromam digal ko na ko reyal sa doom rey na ñetti téeméeri gëlëm saraxe ba léegi yàlla na ko sa bakkanu doom bi laa soxla moo tax mu yóbbu sa doom ji pour rey ko seetal jigéen ju baax ju nangul jëkkëram seetal li haajira tontu iblis lim tontu seytaane def ko ne waay waay yàlla def ko waroon wax na ko rayal sa jabar konoon ci lay neex bu ko yàlla waxoon ne rayal sa jabar kon ma jël suma benn bakkan bii man mi jabaram jox ko ko mu ray ma allahu akbar mu xam ne mënut ci yaay ji dara mu daw dabi ibrahim ne ko génti caaxaan ngay rey sa doom mu xam ne iblis la mu jël xeer jam ko mu ne comme yaay ji wax naag moom saay bu ma waxee mu sànni ma xeer ma daw ñëwaat ba muy juróom-ñaar yoon ñu jël Ahmed Dam foode ci line bi salaamualeykum Ahmed. waaleykum salaam. yaa Ahmed. na def. na nga def Amath. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. waxtaan bi neex na. yal nañ ko jëriñoo. amin amin amin. macha allah. dañu bëgg rek moo tax ñu xool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yaa ñaanal yàlla gudd fan ak wér. yal nañu ko yàlla boole ñun ñëpp. amiin amiin amiin. yal nañ fekkee déwén yu baree baree bari. amiin amiin amiin. te yàlla gërëm. amiin. macha allah jërëjëf. incha allah jërëjëf waay kontaan nañu bu jërëjëf kontaan nañu. barakallahu fiik. amiin wa iyaakum. Hmm. seytaane jéem na pour Haajara dem nangu ji doomam Haajara lànk. na ko dafa waroon daf ci waroon a boole rendeel sa jabar man it ba ma jël suma benn bakkan bi jox ko mu ne comme manuma ci jabar ji dara xaaral ma yàq xelu Ibrahim ñëw ci suñ maam Ibrahim na ko génti kese nga bëgg a rey sa doom mu xam ne Iblis la mu jël xeer jam ko Iblis ñëw na ci moom juróom-ñaari yoon pour yàq xelam Ibrahim sànni na ko juróom-ñaari xeer mu xam ne góor gii mbëggeelam ci yàlla mënuma ci dara pas-pasam ci boroomam yàlla ko gën a ludul moom mu ne xaaral ma dem ci Ismaayil moom mi ñu war a rey ma wax ak moom booy génti caaxaan sa baay bëgg laa rey mu xam ne Iblis la mu jam ko nis mu ñëwaat Ismaayil seetal ni nga rafetee mu jël xeer jam ko mu daw nis tuut Iblis ñëwaat Ismaayil bàyyil xel ne benn bakkan nga ah, boo ko ñàkkee jeex na ñëwaat amut iblis songo na ismail ismail di ko jam muy ñëw di yàq xelam ba ismaila jam ko juróom-ñaari xeer moo waral boo demee màkka ñuy sànni jamra jamratu suxra am na jamratul wusta am na jamratul kubra am na bu ci ne ñetti jamra lii lee ñu jël soxna si salaamaaleykum. salaamaaleykum salaam. soxna Yacine. naam. naka nga def. jaama rek kay. alhamdulilah ça va ne. ah programme bi moom jërëjëf jërëjëf jërëjëf. allah. yal nañ ko jëriñoo. jërëjëf waay. ndeysaan macha allah. ñu sant ko bu baax a baax. dem nañ ba egg min iblis jéem na yàq xelu haajara yaayu ismail munu ci dara mu jéem a yàq xelu suñu maam ibrahim pour mu bàyyi mbir mi munu ci dara mu jéem a yàq xelu ismail miñ war a rendi munut ci moom dara biñ demee nag ba àgg suñ maam ibrahim ci la doona a wax ismail lim ko indee ci àll bi lan la Ismaayil na ko baay bul seet ne yaa jur bul seet ne man kenn dong nga am bul seet xolu njuréel bi defal li yàlla digal ci man rendi ma dinaa muñ duma daw duma caalit duma yàq affaire yi dinaa nangu nga rendi ma allahu akbar commencé summi yéreem yi moom Ismaahil summi yére yi tegee ko boor commencé summi tubóoy ji baay bi na ko lii nag mu ne ko aw ma netaal bu ma la jox nga yóbbul suma yaay pour mu di ma ko xoolee aw ma benn cadeau bu ma ko jox yére yi mooy netaal bi mu ma war a xoolee di ma fàttale ko te bu takkee deret bu ko gisee dootul lekkati dootul nelawati ndax day xelaat ni nga ma rendee ci àll bi moo tax ma bëgg ñu leem ko na sori fi may tëdd bu mu taq deret boo ñibbee joxal ma ko ko ne ko aw ma netaal bu ma ko jox pour mu war ma koo xoolee waaye lii mooy netaal bi na ko bàyyi mu ne ko ñu jël Ami Senghor forom esew salaamualeykum Ami waaw mel na ni amuñ ko ci ligne bi Ami Senghor ñu ngi koy nuyu bu baax foofu ci esew ak baara <laughs> suma ñaari li kir la macha allah yal na ñu leen yàlla fayal bàyyi mu ne ko ah mu ne ko dama bëgg nga takk suma tànk yi ba mu dëgër takk suma loxo yi ba mu dëgër Ibrahima na ko doom lu tax nga bëgg ma takkala mu ne ko bàyyi dee dafa métti te bëgguma nga di ma rendi méttitu dee bi jàpp ma ma wéq suma tànk mu dal la ci dënn walla ci biir tiyaabo bi ma waroon a am ci yàlla wàññeeku takkal ba mu dëgër nammal paaka bi mu ñaw na sa loxo gaaw ma teel a noppaleku ndax dee dafa metti mu takk tànk yi takk loxo yi mu tëdd bi muy teg paaka bi Ismaïla na ko teggil ami Senghor del si waat na ci line bi soxna ami salaamaaleykum waaleykum ami na nga def jaam ma man la sa jabar waaw suma jabar bi may nax rek ami nakam Ndiame Mayaka Oustaz Souleymane Awala nuyu na la. dëgg la Senghor. na ak yow Oustaz yow namoon nañ la. waaw dëgg la dëgg la ndeysaan. ala Fatma maa deful dara. waaw mu ngi ci jàmm naka ñoom Oustaz. Oustaz mu ngi nii deful dara. mu ngoog naka njaboot gi yëpp. xale yëpp ñu ngi si. waaw kañ waay jërëjëf. maanaam waxtaan bi ñaan na lool. kontaan nañ bu baax. maanaam jërëjëf. jërë ngeen jëf. bi Ibrahima demee ba teg paaka bi bëgg a rendi na ko bàyyi teggil paaka bi tekkil suma tànk yi ak loxo yi mu ne ko doom lu tax mu ne ko malaaka yëpp wàcc nañ ba ci asamaan bu njëkk ñu ngi mel ni kuy seetaan fiim yàlla woo na malaaka yëpp na leen kaay leen ngeen seet yéen a waxoon ne doomu aadama bu ma ko defee mu nekk xalifa ci kaw suuf day yàq suuf si du tuur deret waaye seet leen kenn ci doomu aadama yaa ngi nii seet leen kii li ma ko jaral li ma ko jaral qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu lak qaala inni alamu ma la taalamun kaay leen yéen ko waxoon seet leen kii ni mu ma bëggee ak li ma ko jaral malaaka yëpp wàcc di seet Ismaayil na ko soo ma rendee fekk yaa ngi takk suma tànk yeeg suma loxo yi dañuy wax ne da ma indi ba ci àll bi jaay ma doole tër ma takk ma rendi ma ma bañ nag sa der yàqu soo ma rendee ci nii dañuy wax ne da nga ma forcé jaay ma doole takk ma rendi ma ma bëgg nga tekki suma tànk yeeg loxo yi ma tëdd ba mu jakk nga rendi ma bu ëllëgee ñu xam ne rendi gi man maa ci àndoon daf ma neexoon sa der du ci yàqu waaye soo ma reyee fekk yaa ma takk rek dañ naan dëgg ma jaay doole tekkil mu tekki mu tëddaat ba mu jag na ko doxalal gaawal nag ci rey gi ma teel a noppale ko mu teg paaka bi rendi rendi rendi dara dogut mu teggi paaka bi teg ci xeer yi na maat ba mu ñëw tegaat ci baatu doomam rendi rendiwaat dara dogut mu mer sànni paaka bi paaka bi ñaw bay dog xeer yim dal Ibrahima na ko dëg ma bëgg a xañ teraanga ngërëmu yàlla nga ma bañ nga ma bëgg a xañ ma sant la pour nga dog suma baatu doom bi nga bañ ne doo ko dog waaye nangu nga dog xeer yi te xeer moo gën a dëgër baat paaka bi wax ak moom ci kàttanu yàlla na ko yàgg ma naan dogal yàlla na ma bul dog nga naan ma dogal yàlla naan ma bul dog Ibrahim ndax sa wax laay topp walla waxi suñ borom Ismaïl na ne ko bàyyi bu fekkee ne paaka bi dafa dafa bañ a dog suma baat bi ngir éenewut la ngërëmu yàlla bi ngay ut su paaka bi bañee xam nga nooy def jëlal xeer bu mag nga ron ko ci suma nopp bi enuwaat bu diis del dóor ci bopp bi rek ba bopp bi toj yur gi tasaaroo faxel naa dee rek noo ma reyee rek baax na ko paaka bi dafa bañ jëlal xeer di dóor ci suma bopp bi ba keroog bopp bi di toj noo ma reyee baax na bàyyi rey ma allahu akbar mu teg paaka bi rendi na ba sonn paaka bi bañ mu naan ko yaa may wax naan ma ixtax dogal waaye yàlla mi ma bind bind la mu ngay joxe waat ooda di joxe ndigal naan ma laa tax tax bul dog mukk moo tax alquran ne bañ demee ba àgg foofu nag fa lamma aslama wa tallahu lil jabin wa naadaynaahu an ya ibrahim qad sadaqta ruya alquran ne biñ demee ba istislaam am haajara mi jur ismail nangu naa joxe doomam te amul lu dul benn doom Ibrahima nangu naa joxe doomam Ismaahil nangu naa joxe boppam joxe bakkanam ñoom ñetti ñépp nangu too nañ ànd nañ ci rend gi ku ne jël nga li nga am joxe ko ba Ibrahima teg paaka bi ci baatu Ismaahil dawal pour rendi doomam ci la kàddu yàlla jib yàlla wax ak ibrahim mu dégg koy wax ak moom ci asamaan si naan ko eyow ibrahim jékki-jékki mu ngi rendi doom ji dégg ñu tudd turam ci kaw di ko woo naan ko ya ibrahim dëggal nga gént gi dëggal nga ko yaa noon boo amee doom mën nga ko rendi jaamoo ko yàlla dëggal nga ko gént gi nattu la woon bu la yàlla doon nattu da doon seet moom nga gën a bëgg ci sa doom ji walla sa doom ji nga gën a bëgg ci moom yàlla da doon seet kan nga gën a bëgg moom nga gën a bëgg walla sa doom ji nga gën a bëgg waaye yàlla ci boppam xam na ne moom nga gën a bëgg ci sa doom ji moo la gën a dul doom teggil paaka bi mu teggi ñu jël xar bu joge ko aljana tër ko tëral ko fi fi Ismaayila tëddoon Ismaayila jog ne ñokkeet yàlla na ko rendil xar mi mu indi cosaan ñu jël Adama. salaamaaleykum salaamaaleykum. la béy. daraame daraame. na nga def. Dramé Dramé Dramé man Adama Diallo laa dugg saa jërëjëf jërëjëf macha kontaan nañ. wallaay kontaan naa maa ngi na kontaan. dégg kontaan. waaw la xëy dëgg kontaan nañ ndeysaan. kontaan na yàlla defal leen jàmm. macha allah tabaraka kontaan yokk leen yokk leen sutura macha allah. jërëjëf jërëjëf kontaan na ñu itam kontaan na ndeysaan suñu xarit la suñu xarit la Adama Gallo jëri dëgg la ndeysaan <laughs> eh, dinañ gisee dinañ gisee incha allah dinañ gisee jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah ñu sant ko bu baax mbokk mu baax la ndaw la ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla def mag macha allah mbokk yi yàlla ni ibrahim gént gi mu ne ko mu ne ko nattu la rek dama doon seet fu sa xol toll ci man kon mbokk yi tabaski ñett lañ ci war a jànge borom kër yi am na luñ ci war a jànge ci roy suñu maam ibrahim ci bëgg yàlla ak jeex ci yàlla yàlla gënal leen lu ne waaye jigéen ñi am na luñ ci roye mooy roy xaajara ci nangul sa jëkkër bu doon beneen jigéen mu ne ko soo bëggee doom joo rey wuti ko feneen waaye suma doom ji kenn du ko rey kon jigéen war naa jàng ci xaajara ci nangul sa jëkkër waaye xale yu góor yi yuut si ndaw yi war nañ cee jàngee ne doom ju baax day nangul woy juram day topp ndigalu waa juram Ismaayila bu nanguwutoon bu baaxutoon daf naan bàyyi ah paa bi man la bëgg a doxal man la bëgg a rey waa xaaral moom ma éliminer ko benn yoon rey ko mu far jeexal bala maa rey moom ma rey ko loolu la booy yi wax mais xoolal Ismaayil kon fa tabaarakallaahu li ci nekk ci njàngat bari na mënuñ ko ndar képp ci benn jotaay te li ñu waxtu wi mayoon ak yéen jeex si na ñu ngi tënk suñ kàddu foofu di sant mbokk yi nekkoon ci control room bi saytu programme bi ba ngeen mun ko jëriñoo di wax ne wa dumtum bi xeyr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu